boobu xaw ma ay ñàppantaan ay xaw ma lan ñàppantaan <laughs> loolu tax nekkul moom a téye parce que loolu ba tey consommé guñ ko woon <laughs> waaw tey tamit dama leen a demal fële ci HLM rek mm. euh, xam nga sedd bi climat bi commencé na neex mm-hmm. euh, commencé na la commencé na sedd fii bien sûr ah. Ah, commencé na neex arrangé wul nag ñenn ñi mm-hmm. parce que yi climat bi ma gis nii arrangé wu leen tudduma turu kenn man. non man man j'ai pas ce problème. Hmm. te su ma xëyee ndox mu sedd laay. loolu fii dem suñu H&M boutique ne ay tuuraay ak yu baax la ñuy jaay. très bien euh, ñu ñu ñu dem xool ko ñëwaat. Hmm. waaw moo fi ngeen ñu gis nii nag mooy asalam H&M sànq ñu ñëw fii si bitigu Modou Cuuraay fekk fi xëlëf xëlëf joo xam ne ak jambal jambal joo xam ne man jaaxal na ma waaw Modou yow Modou Modou Modou Cuuraay sa secret lan la siyaar siyaar laka mu lépp jàmm siyaar naa leen di nuyu ñëpp di nuyu waa Yerwaay ñi nga xamante ne bi foofu laa bokk muy waa kat sëñ Moustapha Guerwaay di leen wax ne leen ñii ñu ngi ci ah université de Cuxaay université de Cuxaay nag bu buñ ko déggee mooy nekk fii ci marché asalem cinq ci roxu naar yi ci bidugu ah Lamfal Cuxaay asalem 5 nag buñ ko waxee mooy Muudu Cuxaay xale bi nga xamante ne mooy caatu ci cuuraay a am ci doole lool ba pare moom xolam mooy yoonu fajaram parce que dañ ko tërbiwu maintenir ko di ci essai wu di ci essai lii nag mooy cinquante ans cuuraay yoo xam ne moom lañ jaxase. waaw suma ma lii lii boo ko taalee da nga koy rëkk di ko suul di ko bëgg di ko tong-tong di ko talaatay ndeer loolu dafa ëpp loolu. waaw mais Modou xëlëf xëlëf ji ma fekk fii lan la. xëlëf xëlëf ji mooy génne poudre bébé bi génne xeeru ngor bi mooy jigéen ñi sëy fa ba dee fa ba pare ñu jël cinquante ans cuuraay bi ba pare ñu jël càtt bi nga xam ne da koy taal suba teel di am xaalis parce que kenn ku ne nag xam na xaalis ak doom dafa sax ci xol xaaliya bi nag ba ndimbal mu des xaali yaa ngi nii mooy xaaliya bi boo xasee toog boo xasee taal boo amee connexion xale yi dañuy dem toog waaw bi mooy xaaliya waaw soosu kaani bi nag nekk nii nga ñëw fekk fi jigéen ju man góor ñu naan ko euh, Mati ki nga xam ne mooy xolam mooy yoonu fajaram lu mu gën di dox mu gën di leer ki moo njëkk a takkal yaayam or ñu naan ko Mati ba pare nag nekk femme battante ba pare rañe def rañe d'accord Modou ñu gis la jigéen ñi song la nii sedd bi la ñuy préparé wala ñoom bu dul sedd sax nii. jigéen ñi moom macha allah macha allah ñoom fu ne la ñuy jógee dañuy wootee dañuy rang sax dañuy dagg tigeey sax di ko rang parce que dem Dubaay yomb na mais jaay moo jafe waaw jaay jaay moo jafe waaw. yow lan ngay wax ñi nga xam ne peut-être dañu am sinusite. saxaar bi da leen di sonal. léegi jigéen ñi naka lañ dañuy laal pompe yi rek am na ay pompe ya xaaliye am na ay marbu am na ay taaxa am na ay misk ñu mooy ñoom Zilka ñoom Aqua yëpp a ngi nii da nga koy pomper rek waaw. wala nga waa dégg jaamu ñoom moo kaa bi am na noo ko mën taale te du saxaar laay léeg laa da nga koy def ci doom bu nooy boo ko defee ci doom bu nooy coin sur coin la gisoo ànd sar yaa ngi nii sama yaay ju baax ji naan bii ñaata 1500 waaw ànd sar boo yaa ngi nii uh-huh. waaw gis nga ko nii waaw ànd sarbon baa ngi nii da ngay teg sa sarbon rek waaw teg ci waaw en tout cas daal cuuraay moom fii la jënd bàmmeel. fii daal la mburu mi di. waaw fii la fii la mburu mi di xooyam xooyamee. fii lay lan nga lan laa dégg nga taasul ko femme bi léegi. mat yi dama ne ko yaa man yaa ëpp doole yaa gën a féetee xale. ma tegal ko ci ne ma caatu neen xale du ca dugal loo day xotti boli. ku sa reeru baay doy dootal a xaaraani ba di bi max ki ko man ak ki koy ji mbokkul waaw. xam nga waaxum gileem xajul ci pantre ah. waaxum gileem xajul ci pantre waaw ki man ak ki mënul bokkul. cura jéem ki man ak ki jiim bokkul. ki bëgg liggéey ak ki mën a liggéey bokkul. mais moo dina jàkkaar bari nañ mais ñoo man ñoo ëpp doole. boo xoolee dañ ko tarbiya. dégg nga Mati mu koy wax nee na maa man ma. client bi xolam dafa sedd. non xolam dafa sedd parce que bi mu ñëwee dama ko accueillir dalal ko ñoom man lañuy ñuy topp su ma xëyee du ma mën a ndékki sax ndax téléphone. sant yàlla baax di sant nag waayeer waay lépp ñoo ma liw bi liw bi ngelaw la waaye mati nee naa ko yow maccaatu neen xale bi te dugal loxoom day xotti bëri yow doone benn xale bu ma topp mais ku la topp day wañee <laughs> Feuz kon tey loolu nga ñëw indil. ay cuuraay ci mhm. sedd bi. waaw man li ma jaaxal ki doon wax ne moom amul problème yooyu moo doon ñaan off ñaan na ma léegi nii cuuraay ndax. Moodu cuuraay mi ba ma fa demee naan day wuti ànd yàlla may na ma ci cuuraay li neex mu neex lool nag moom moo Moodu cuuraay. fële ci HLM eh, yaakaar naa xëlëf xëlëf ji gis nga na mu fa bëree. nit yi dañ koy wër léegi doo ci may ki la doon ñaan. non non non kooku na jël cuuraay bant. Ah, cuuraay bant am na waaw loolu mooy cuuraayu célibataire cuuraay bant pour dàq yoo la. non non am na cuuraay yoo xam dafa neex amoon na dañ ko doon dessiné indo yi yéen ngi rappelé mhm, cuuraay mhm. yooyu ngay jël. cuuraay indo sax lañ ko doon woo. yooyu day day dàq yoo man kon <laughs> moom mooy dàqee yoo. <laughs> Fatou gis ko mi ngi noonu gis nga mhm. nag moom jigéen ñi dañuy song cuuraay bi. comme pas possible. Euh, maa ngi koy laajaale nag ne ko ndax amul nuñ ko mën taalee ba du saxaar parce que am na ñoo xam ne euh, dafa leen di lor. ñu amee sinusite ak ñu demee noonu ak asma yeeg yooyu mais xamal na ma ne ma da ngay jël euh, papier aluminium wala nga jël ko si kuddu bi mm. teg ko ci dina xeeñ te du saxaar mm. voilà loolu système la voilà léegi nag man li ma ci bëggoon loolu rek mooy jigéen ñi bari dañoo jàpp ne cuuraay mooy sëy alors ko cuuraay kese sëyul mm. euh, góor nekkul cuuraay kese moo koy téye cuuraay nag baax na ndax day dundal kii ruux ruux. xet gu neex ruux la ñuy wax. waaw ah, xet gu neex ah, waaw sama mbokk oustaz arabisant yi dañ naan ruuxu <laughs> maanaam xet gu neex daf koy dundal. Ah, eh, ba tax na cuuraay dafa baax ci ci ci doomu aadama ak xet gu mm. neex mais nekkul mooy téye góor am na jigéen ñoo xam ne nag jàpp nañ ne ñu fekk cuuraayu ñu. kër gi du ay fer kër gi du neex alors que du loolu. Mm. Eh, leneen li ma ci doole waat mooy sedd bi kon léegi du loolu lan la. non non non. leçon na yegg la sa jëkkër koy dalal faatu dalal xelam. d'accord Euh, di ko dimbale ci liggéeyam bu wàccee nga xool kii añ na wala lekk na waaye li ma gën a bañ mooy jigéen yi nga xam ne tey ji seen borom kër yi bu ñuy xëy sax dañ naan leen delloo leen ma buntu bi du ñu yeewu duñ la defaral ndékki duñ la defaral du am câlin mais loolu baaxul man li ma xam ah. ci ci ci ci li ma xam ci ci borom kër bu yeewoo mm. faatu fajar bi julli bi mm. eh, surtout satala gis nga ànd yii nii mm. nañu wàññi ànd électrique yi du ko dàq de mm-hmm. mais nañuy booyal ànd yi teg satala bi muy fanaan de ce fait que sa jëkkër bu yeewoo dina mm-hmm. mën a jàpp suba si teel bi parce que am ñoo xam ne dañu am problème mu yàq ñuy amee rhumatisme mm-hmm. donc ndox bu sedd bi day metti si ñoom boo ci tegee satala bi bu fanaane bu yeewoo da ngay suul doom ji rek dafay nugg bu jàppee di julli d'accord ah ngeen toog waxtaan. Hmm. buy xëy nga dem gunge ko mais da ngay xëy ñu naan la delloowaale ma buntu bi. wala gaz bi seen jëkkër yi génn di. wala <laughs> bàyyi fi njëgu loolu boo wàccee lañ la koy boo wàccee lañ naan la courant bi de jeex na. gaz bi dafa jeex facture day dem góor nekk loolu moo ay ñoom foog nañ ne bu ñu lay wax loolu dañu war a taal ci wuraay hmm. takk fer yi hmm. yëngal seen yaram ne la gaz bi jeex na wala jox ma naa nangam loolu teewul góor góor da ngay dalal xelam d'abord ba bu xëyee dem bureau. merci pour les leçons first dina dina ñëwaat ñëwoon si mm-hmm. kër gi. yow fekk dina ko dalal. yow foog nga am beneen rubrique. pare naa pour lépp waaw foog nga am toog fi joxe ay leçons. Eh, xajul ci waxtaan bi xajul ci du li a wax li ma bëgg a génn sax. non non xaju fi ba ngoon comme émission bi nga def jotaay boobu nga nga waaw nga. mais daal faatu jigéen ñi ah. dañuy yeew defaral seen borom kër yi ñuy dégg. Ah, waaw waaw ndekki àll gooju erreur la ah. te kalaasu feuse yi dañoo doy waar dañoo nekk ci bopp koñ yi. mën nañ sur le plat. Hmm. mën nañu defar. Ah! man maa la wax waaye man de mosuma ñam sur sur le plat nag. non non yow garaawut célibataire nga. Hmm. garaawut. moom gargot yi lay def. moom na dem ci gargot yi rek <laughs> wala mu bi ci koñ bi. <laughs> wala bu nekk sama koñ mu dugg ma yi ci boutique bi waaw. <laughs> jërëjëf Feuz. waa people de temps yi ñoo amee daw gi. kan la. waa people. ah waaw Télé Sénégal moom comme lu neex waay def. Hmm. Ah. waaye man dawuma. man jaaxle naa ci. man moom dawuma dañ ma dañ ma dem naa toog noppalee yow Sonko la may congé man xaw ma daw. yow Sonko la may man sama maam ya ma bokk. mais daal xamuñu daw. ah waaw xamuñu daw. doy na waar voilà mi ngi noonu jërë ngeen def. Euh, kon ñu dem ak clé d'or puisque waa people dawati nañ. dawati nañ dawati nañ. waaw kon ñoom ñoom la rek danoo daw tey danoo daw. est que am nañ lu ñu indi. Ah. ah dëkk bi moom coow coow ah. nee na yegsi na enfin Ah. ah enfin waa people euh, <laughs> dawuñu ñëw nañu mais Feuz li nga indi am na solo et je pense que vraiment tu a tu as raison. Mhm. kon ñu dem jëli door waa people finalement. dëgg la ñëwuñu. xam nga Fatou kër yi li kër yi li fi nekk dafa bëri ñu war ko wax. Mm. Euh, muy euh, jigéen ñi fi mu ne nii dañoo dañoo sëyeetul daal maanaam. Mm. comme li nga ma wax sànq rek ne ma il faut que ma toogaat fi.